الله الله الله رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما mbokk jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñëwaat nañu ak yéen ci seen jotaayu warattilil qur'ana la ngeen di ko ànd ak seen mbokk Mouhamed Alioune Guèye Abou Taha eh, ñu war a ñëw tey ci buntub maxaarijul xuruuf ci téere boobu tudd al muqaddima fi ma ala qaari il qur'ani an yaclama te ñu koy gàttale ci muqaddimatul jazariya borom téere bi nee na sabata achar ala alladi yaxtaaruhu man ixtabar almaxaarij baat bi jamcu la mufradam mooy maxraj maxrajul xarf mooy génn waayu xaraf buñ ne maxaarijul xuruuf kon mooy génn waayu xaraf yi alxuruf al arabiya ni ñu ko junje woon ci jotaay bi wees dañoo am ay génnukaay ni yàlla binde nit dëxëñaale ci moom ay kàddu yàlla nit dëxëñaale ci moom ay kàddu kàddu yooyu nit man koo wax mu génn ay moroomam dégg ko kàddu yi ci langue bu nekk dafa am ay xaraf yu koy composé bu dee ci arab xam nañ xaraf yooyu di ko composé mooy tàmbali alif jeexe ya di ñaar fukk ak juróom-ñett waaye bi ko yàlla tëggee alquran maanaam bi yàlla jëlee xuruuf arab yi alxuruf al tëgg ci alquran sàmm gi yàlla wax ne dina ko sàmm alquran inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun dafa feeñ ba feeñaale ci yitte yi nga xamante ni boroom xam-xam yi def nañ ko ci arafi arab yooyu ci xam fu ñu dëkk xam nañu mel waaye ak yi ci aju yëpp damay faral di wax ni langue boo jël am na ay ay ay ay ay xaraf yu ko composé bu dee français xam nañ ni A ba la ak yu ñu dem waaye gisaguma wala déggaguma ñu ni boroom xam-xam bu sàngam buy gëstu ci langue français gëstu na ba wax xaraf wu nekk ci A ba fan lay génne ak yan melokaan la am <laughs> kon yitte ji nga xam ni borom xam-xam yi jox nañ ko alxuruf al arabiya day dugg ci biir li yàlla ni inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun ndax xam xaraf yooyu xam seen génn waaye xam seen melokaan day tax alquran ji wér ni ko borom téere bi waxee ci laytaay yi ci sunu jotaay bii wees maxaarijul xuruf eh, dafa am lu ñuy tudde almaxaarijul aamma di ay génnukaay yu mag ak almaxaarij alxaasa di ay génnukaay yoo xam ni ñu ngi ci biir génnukaay yu mag yoo yi génnukaay yu mag yi juróom la génnukaay yu ndaw yi borom téere bi nee na fukk la ak juróom benn fukk ak juróom ñaar kon yu mag yi kon yu ndaw yooyu la jàngale maanaam li ñu tudde almaxaarijul xaasa wala almaxaarijul fariya moom la borom téere bi lim waaye maxaarij fariya yooyu bi mu koy lim da nga ciy déggaale li ñuy tudde almaxaarijul amma ma lim ko juróom yooyu pour ku ko bëgg jàpp la ci njëkk mooy aljawf aljawf ñaareel bi mooy alxalqu aljawf mooy euh, euh, alfatxa wala alxalaa alwaqia euh, bayna min alxalq ila alfam vide espace bi nekk ci biir put nekkaale ci biir gémmiñ espace yooyu moo tudd aljawf alxalq mooy put allisaan mooy ñetteel bi mooy làmmañ alshafataani mooy ñeenteel bi di ñaari tuñ waaye alxaysuum mooy juróomeel bi di yaxuk bakken ci biir ci kaw juróom yooyu moom lañ tudde almaxaarij al amma génnukaay yu mag yi génnukaay principaux yi bu dee noonu la ñuy waxe baat tubaab bi ñoom ñooñi nag da cee am ñoo xam ni ñoom ñëpp benn génnukaay rek nekk ci biiram waaye am ci ñoo xamante ni ay génnukaay nekk ci biiram bu ñëwee ci lu mel ni ci misaal alxaysuum ak aljawf bu ci nekk benn génnukaay nekk ci biiram bu ñëwee ci lu mel ni ashafataani ñaari maxraja nekk ci biiram bu ñëwee lu mel ni ci alxalq ñett nekk ci biiram bu ñëwee lu mel ni allisaan génnukaay yu limu moo nekk ci biiram moom moo ci ëppale ay génnukaay mooy allisaan di làmmañ génnukaay yooyu nag buñ leen boolee moom la borom téere bi wax ni sabaata achar fukk la ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yooyu mooy benn génnukaayu aljawf ak ñetti génnukaayu alxalq ñeenta ngi noonu kon buñ ci boolee fukki génnukaay yi nekk ci al lisaan muy fukk ak ñeent ñaari génnukaay yi nekk ci ashafataan muy fukk ak juróom benn benn génnukaay bi nekk ci alxaysuum muy fukk ak juróom ñaar kon bu ne génnukaayu xaraf yi fukk la ak juróom ñaar mi ngi ci jublu almaxaarij alxaasa te mooy lim boobu ma joxe léegi benn bu jawf ñett yu xalq fukk yu lisaan ñaar yu shafataan ak benn bu xay suum wala ma wala ko benn bi dëkk benn maxraj bi nekk ci aljawf mooy eh, espace bi nekk ci put ak gémmiñ ak ñett yi nekk ci put ñetti génnukaay yi put séddali ko ak fukki génnukaay yi séddali ko ci làmmiñ ak ñaari génnukaay yi séddaliku ci digg ci ñaari tuñ ak benn génnukaay bi nekk ci yaxug biir yaxug bakken loolu buñ ko boolee lim boobu moo ñuy jox fukk ak juróom ñaar moo tax alimam Muhammad ibnul Jazari rahimahullah wax ni maxaarijul xuruufi génn waayu xaraf yi sabata fukk la ak juróom ñaar ala alladi man ixtabar ci ki nga xam ni tànn na lim boobu ginnaaw bi mu ko ixtibaaree ginnaaw bi mu ixtibaaree ci seeni génnukaay ne dina yëg ni lim boobu yi mu wax la te bu la muy firi kon mooy tànn na lim boobu lu waral loolu mooy ak wuute daa am ci borom xam-xam yi ci limub maxaarijul xuruuf moom imaam al jazari am na ñu àndal ci xalaat bi ni fukk ak juróom-ñaar am ñu ni fukk ak juróom benn la am ñu ni fukk ak ñeent la loolu tamit euh, lu mat a xam la alimam aljazari rahimahullah euh, wala alimam sibawayhi ak alimam shatibi ak ñeneen ñu ànd ak ñoom ci seen gisin ñoom dañoo gis ni maxaarijul xuruuf fukk la ak juróom benn ñoom seize lañ gis alimam Shaatibi ak alimam Sibawayhi ak ñeneen ñu ànd ak ñoom ñoom dañoo gis ni génnuwaayu xaraf yi matul fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la li ko waral mooy ñi ni fukk ak juróom-ñaar la dañoo wàññiwaale li ma waxoon sànq aljawf difa fa génne alxuruf almaddiya aliful madd waawul madd yaa'ul madd kon ñoom xarafi madd yooyu fiñ koy génnee alimam Sibawayh ak alimam Shaatibi ak ñi ànd ak ñoom ci seen xalaat ñoom wàññiwaale wuñu aljawf ci maxaarij ji looloo tax ñu ni fukk juróom benn la boobaa ñoom xaraf yooyu di xarafi xëcc yi bu ci nekk dañ lay delloo ci sa ci sa cosaan ci misaal yaa gi xëcc dañ koy delloo ci eh, wasatal lisaan mu fekk yaa Eh, waaw gi xëcc dañ koy delloo ci benn shafatayn mu fekki waaw foofu ak yu ne demee xarafi xëcc yi bu ne dañ laa delloo ci sa cosaan maanaam xaraf wi nga bokkal te du xëcc fa muy jugee ñu delloo la ni foofu ngay jugee bàyyi aljaw fu boole wuñ ko ci almaxaarij loola tax ñoom ñu ni fukk la ak juróom benn al imam farra ak imamul jurmi ak imam qutrub ibnu kiisaan ñoom ñii ak ñeneen ñu ànd ñoom dañoo gis ni maxaarijul xuruuf fukk la ak ñeent alimaam Qutrub ibnu Kiisaan alimaamul Jurmi ak ñu ànd ñoom ak euh, ku al imaam al Farra ñoom dañoo gis ni fukk la ak ñeent lu tax ñu def ko fukk ak ñeent ndax ñoom benn ñoom imaam euh, Sibawayhi ak chatibiye bi ñu wàññi bi ñu isqaat di aljawfu ñoom isqaat nañ ko waaye allaam xarfu laam warraa wan nuun ñetti xaraf yi dañ leen boole benn maxraj ñetti xaraf yi boo demee ci madhabu ñoom eh, al imam ibn al jazari ñu ni fukk ak juróom ñaar lañ ñetti xaraf yi laam ra nuun bu ci nag daa maxraju boppam ñoom nag eh, ñi ni fukk ak ñeent la di ñoom Qutrub imam Qutrub imam Alfarra imam Aljurmi imam Ibn Kisan ñi fukk ak ñeent la ñetti xaraf yi dañ leen génn ci benn maxraj boobaa kon ñaari maxraj day manqué waat ndax laam ra nuun ñetti maxraj la woon ñu boole leen benn maxraj kon am na ñaar yu génnaat kon bu fekkee ni ñee génne woon nañ benn de sa fukk ak ñaar ñoom ñett lañ génne dese fukk ak looloo tax ak wuute am ci am ñu ni fukk juróom fukk ñeent la li tax ñu def ko fukk ak ñeent mooy dañoo génne jawf laam ra ñu boole leen benn maxraj ñoom ñett ñëpp am ñu ni fukk juróom benn la li tax ñu def ko fukk juróom benn mooy dañoo génne jawf bàyyi la ci des noona am ñu ni fukk juróom ñaar la te mooy madhab bi nga xam ni al imam ibnul jazari ci la ànd ñoom dañoo wañaale jawf laam ra nuun bu ci nekk tamit ñu génne ko ci maxraj boo xamante ni jàpp nañ ni foofa la dëkk waaye bokkul ak moroomam wuute nañ donte jigéen a lool lool lool euh, lii mooy wuute gi nga xamante ni dox na ci biir boroom xam-xam yi ci biir euh, maxaarijul xuruuf yi génn waayu xaraf yi ñaata dañuy taxaw ni foofu incha allah bu ñu ñëwee ci sunu jotaay bii nag doog dugg ci xaraf wu nekk fan lay génne tàmbale ci maxraju aljawf eh, topp ci incha allah alxalq put bu ñu paree ñëw ci allisaan bu ñu paree achafataan alxaysu maxaarij jeex incha allah seen mbokk la woon Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye ci seen jotaay warattilil Qur'ana tartila asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رتل القرآن ترتيلا